Abbé Jacques Seck ñu ngi lay nuyu di la dalal. sëy naa leen sëy naa ñu lay dalal bés bi nga xam ne ñoo ngi màggal euh, lii di euh, bés bu ñu duppee Noël ñu bëggoon a xam. Euh, signification bi lan la lan moo waral ñuy màggal bés bi. waaw ah. diine puutali nekk diine chrétienne bi nga xam ne ah eh, eh, maxasalaam ci jamaano bi bu nit di di di jéem a ut. Eh, eh, dat lu mu nekk mhm. day seet ne ah dalee ko carfa ba isaa juddoo ba tey ba et cetera mhm. donc euh, ce qui fait que ah gërëm nañu yàlla ndax yàlla bu ñu mayee islam mhm. religion mondiale église religion mondiale bouddhiste religion mondiale ak yee ci des comme diine yooyu fo daal ma fonkal sama bos fonkal uslaan du diineem bu ma ko munee sax ba am ma xaalis tuuti ma may ko bii makk ndax bu demee ñaanal ma rek léegi mi day gën a baax incha allah. tey bu ñuy màggal nawel ndax dafa am li nga xam ne moom la ñu digal euh, bépp chrétien euh, bi koy màggal. ah cest à dañ koy feetu. Hmm. yaakaar naa ne yàlla moo jël baatam def ko nit yónnuñu ko. Hmm. ñu war a topp nag yëpp leen parce que diine chrétien dafa ne soppal sa morom ni nga soppee sa bopp. Hmm. fonkalal sa morom ni nga fonkalee si nga am hmm. respecté keneen ni la respecté nga bëgg ñu respecté la hmm. ah su ko defee nag waaw bëgg naa lii kii bëgg na ko naa ko am ci normal nii dañ koy woote ci réew mi hmm. bu ma jéem a dem ju ndax ko naa def rek fii Sénégal boo fi am ñu la woote am ñu la woote waaw nga def ko munoo nekk euh, citoyen musulman chrétien nag bañ a baaxal gañ a sakkanal lii tax réew mu jëm ci kanam munoo ko mhm. comme musulman comme chrétien ak ña ca des dañuy mhm. fay daal boo boo foo féete nga def ne en Afrique noire da yaakaar naa démocratie Sénégal la ëpp mhm. ko defee moo ñu mun a tiitaroo ne ah nit ñi xëy na wax waaw ndax duñu bëgg ñu bokk ci ñi gën a baax ci Afrique. tey ñuy màggal euh, Noël euh, mu tombe wat ak yi mbas lan nga jàpp ne tey euh, fidèles chrétiens yi nga xam ne ñoom ñooy dem ñaani ji noonu la ñu a taxawee. su dee gouvernement di fa wax ne comme mbas maa ngi fi daal bàyyi leen rassemblement bi waaw mm-hmm. su dee jaru ko mais bi duñ ko def mm-hmm. ndax mën nañu jaamu yàlla suñu kër te te du wàññi dara. Mm-hmm. mun nañ ko def itam foo xam ne bu ñu toogee ci suñu famille nañ ko def loo xam ne gouvernement bi nga xam ne nasaxul joxe na ko comme euh, ordre loolu la ñu war a def mm-hmm. parce que ñuy wax ne bu leen dox lu bari jàmm la ñu bëgg dañu bañ nga nga bari li fi ngay debee ramasser ko dem yóbbu ko sa famille mm-hmm. waaye tànk bu bariwul li muy dox kañ du bari lu mu salté yi weddal mm-hmm. su ko defee nag comme feebar am na fi mu dugga ñu ne nañu def dànk daal ndax bañ ko dawal alhamdulilah loolu lu baax la di. Mhm. mu li ñu bëgg nag mënut a am am lu baax te amul contraire déedéet il faut mu am contraire lii duñ ko def fii duñ fi def lii diine bi nii la nag lii di daa am lii la mu bëgg nag naa ko def u nekk nag bu bëggee def lu ko neex rek du sotti ça c'est pas la citoyenneté. d'accord mu am loo xam ne dañ ko def daal ba li ma bëgg yëpp mënoo ko def parce que du du du amal ñëpp a ak sama bu di bi nag kenn baal ma. dëkk bi bëri na euh, li ñuy gis violence ay jamarlo yu metti ci politique la ñuy door euh, tey ban appel ngay lancé justement jëm ci mbir mi jamono ji nga xam ne ñoo ngi waaj ay élections. dañuy wax ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci pouvoir bi ak ñi bugg a jël pouvoir bi ne adduna yemul rek nag ci falu buñ la falee président la république premier ministre. député et cetera liggéey lañ la jox xam nga ne yow ñi la fal ñu doomu yàlla doo malaaka doo jinni nit la am nga qualité nag wóor la ñoo la fi teg daal souvent nag li ñu gis kuñ fi teg dina góorgóorlu def li mu mun yem ci la waa parce que nag malgré li suñu désir munul nekk malaaka mbaa mu def <laughs> lu mu def de kon ku ñu fi teg daal dina la permettre nga def sa programme ndax mu gën a jëriñ hmm. buñ ko buñ ko defee nag ba sa mandat jeex te li nga def baax na itam ñu jëlaat la bu fekkee ne sa mandat jeex na te nag keneen euh, ñor ñu ñu jël keneen surtout lii la ñuy def depuis maam Adama ba tey kañ démocratie noonu lay def te nañ ko war a nangu to ou tard foog nit remplacer parti bii waaw waaw. et cetera. dëgg la euh, am na tamit euh, du rek politique bi euh, front sociale bi tamit yëngu-yëngu yi bëri na tey tamit ban appel ngay def ci li nga xam ne moom mooy dialogue social bi. waaw parce que ñi nga xam ne si turu borom ñu bokk. Hmm. pour wax lii wax lii wax lii ah kañ dama leen déglu. Hmm. ñu bari ci ñoom boo ci gisee sept sur dix lu baax la ñuy wax dañuy wax. pour ñu def li ñu war a def ndax réew mi gën a nekk modèle en Afrique. Mhm. réew mi gën a jub ku nekk ci ñoom gën a respecté parti politique am respecté ku ci nekk daal jomma ñaaw ci xaalis bi la dénk nga di ko ci turu réew mi mhm. mbaa ci turu bi mbaa ci turu sa sa ethnie et cetera mhm. parce que ku ñuy woolu daal teg la ci kanamu li ne war nga jombal lu bari. jombal foo man kese kese ñàkk a jom ah, ah. comme dañ la jël daal il faut nga def effort ba ci ren li la jox fexe ba Sénégal fu ñu wax lu baax rek ñu nekk mboor eh, eh, eh, ñu jiite mhm. gis ne acteur bu mag nga ci wàllum dialogue islamo-chrétien tey euh, ci état des lieux ba ñu doon xaymaal ndax Sénégal mu ngi ciy gën di def ay jéego. non Sénégal nag waa dëgg euh, ci dialogue interreligieux yaakaar naa bu ñu euh, compter ñetti réew comme tu ma bu ñuy bu ñu nekkul premier dinañu nekk au moins parce que ah, li ñuy dund waa dëgg rafet na rafet na mhm. man li ma li may dund ak euh, xalifa yi euh, ñeneen ñi suma doom Oustaz Ndour ak ñi ci des ku nekk ci ñun daal musulman bi chrétien bi mu ngay jéem daal fexe ba suñu nekk ci dëkk nekk moo def ci àdduna si mhm. te du bu bu tiital de du bu tiitalu de farata la labe sax war na ah labe boobu day jëlag daal fexe sa gaal ustaas waram loo fi gis daal mu ngi koy def pour ñu xam ne islam diine jàmm la islam du caaxaan yàlla ko indi et cetera ce qui fait que entre ñu nag maanaam tuma ustaas ak ñeneen ñi ñoom it Abibou Tall ak ñooñu fu ñu daje daal ñu fexe ba sans faire du calcul yu ne Sénégal de bokk na ci ñi nga xam ne ah. yàlla barke na leen may na leen ñu déggoo. Mhm. may na leen fu ñuy wax lu baax daal Sénégal feeñ bu ñu amee ñetti te Sénégal feeñ ca bi incha allah. am benn cadre bi nga xam ne taxaw na cadre islamique la ñu duppee ko CUDIS euh, li ko tax a jóg moom mooy jàmm mën a am ci mim réew euh, li ñuy waajal mooy élection yi nga xam ne du am benn jàmmaarloo tey seen liggéey noo ko jàngatee. Euh, non gën a déggoo. voilà. gën a jëm kanam. Mhm. parce que bu ñu bëggee rek muy avancé te déggoo ñu di sotti moo tax même parti politique yi war nañu am mais nag bu ñu déggoowul réew mu du avancé. Mm-hmm. te nag war nañu xam ne suma parti politique baax na waaye yorul ko. Mm-hmm. man mii itam yaakaar na am naa qualité waaye yoruma ko. Mm-hmm. bu ma ko partage ak ñeneen ñi d' accord ne àll ba de côté gi c' est formidable. côté gi dañ ko ci complété. parti politique bu fi nekk am na vision waaye nag du yàlla. li mu xam am na fu mu desee foog mu mhm. foog mu ne ko ne foo mu desee nag beneen parti mun na ko complété yi ñuy def noonu la. Mhm. Mhm. nit bu fi jiitu woon nit nit lu mu bon bon bon amal réew mi njëriñ ci côté. ma dégg kooku la war a war a def nag avancé tin li nga xam ne nag euh, fooru ci la lool mu bàyyi ñeneen def foofu seen walla réew mi avancé. tey boo nekkee gauche bay droite droite yi ñuy marqué boo nekkee droite yi nag nga <laughs> gauche yi ñu marqué <laughs> wallaay. <laughs> d'accord ah, tey ñu bëggoon rek nga def benn appel wala benn ñaan ci Noël bi nga xam ne ñu ngi koy euh, màggal. waaw li ma ko li may ñaan yàlla. Mm-hmm. Eh, ci euh, judduwaale Isa yonent bi. Mm-hmm. ndax lépp lu fi nit ñaan muy labe. muy Elimane. Mm-hmm. parce que c'est dix-sept ñëpp la. Mm-hmm. ñi nga xam ne daal ñooy ñoo ñoo moom ñaan bi ci àddina si daal ñaan ñaan ñaan. Mm-hmm. ndax Sénégal bokk ci réew yi nga xam ne sax du tiitaru waaye réew yu baax lañu am na ñu baax am na ñu seen la. ba bu ñu bu ñu euh, tànnee daal ci réew mi réew mi gën a baax bu ñu nekkul premier ni ko mooy troisième. d'accord te du pour tiitaru rek seulement exigence la. exigence boobu am na loo xam ne waruma ko def parce ma ko dafee eh, lor réew mi. Mhm. kon nag ma sama sama boppam ndax lu ma def daal mu amal Sénégal njëriñ soit ci jafe ngi soit ci li ñuy gis et cetera. ñoomin ñoomin Ousmane Ndour nag ak ñeneen ñi. Mhm. ñooñu dem lii la ñuy def. ndax Sénégal jëm kanam incha allah. incha allah merci beaucoup Abbé Jacques Seck. jaaraama.